partenaires yi nga xam ni ñoo nekk euh, groupe GFA di liggéey ci programme bi ñuy wax réussir au Sénégal ñoo ñëwoon pour indi seen jàppale seen euh, ndimbal ci conseil départemental bi ci programme bu mu lancé woon muy programme mu jàppale ak euh, accompagner commune département bi yëpp ci li nga xam ni mooy mbas mi wàcc ci àdduna bi donc ñun ci département de Thiès commencé woon nañu accompagner conseil départemental mu ngi doon def ay action ak les communes dans les dans toutes les communes du département desewoon nañu nag juróom-benn commune juróom-benn yooyu tey ñoom la ñu regroupé vraiment pour xool ak euh, partenaires yi nan lañ leen di jàppale pour que et que jeunes yi ak les maires accompagner population yi sensibiliser leen mais également jàppale leen ci ay kit d'hygiène moo ñu mën leen jox ay masques jox leen aussi ay ay savon ordinaire jox leen ay eau de javel jox leen ay gel loolu lépp mais aussi ay ay ay ay ay kit de rinçage mooy fu ñuy raxasoo ki xam nga ci ci bërëb yi nga xam nit ñi dañ fay daje yooyu yëpp dafa am solo loolu nag su li li li li ko li ko waral mooy suñu partenaire yi ñuy wax groupe GFA nga xam ne dañuy liggéey ak coopération allemande ci programme bu mag bu ñuy wax réussir au Sénégal ñoom ñoo ñëw jàppale ñu ci lool loolu ñooñu ñooñu ñoom la ñu bind ñu tontuñu daal di nangu ñëw accompagner ñu ñu def nag loo bu am solo ndax defe naa tey li ñu joxe nekk na lool yi nga xam ne moo gën a am solo bi ñu commencé ba léegi donc loolu lépp day wane rek ñoom seen seen yéene mais également seen taxawaay ci wetu askan wi ci li nga xam ni mën naa ni moo tey tax lëmbe àdduna bi yëpp te lii comme ni ma wax nekkul woon ñoom seen activité principale ndax ñoom li évolué dans la santé ñoom ci former jeunes yi la ñu nekk pour wutal leen liggéey waaw ci loolu mooy seen métier mais lii bi mu taxawee xam nañ ni tey àdduna bi yëpp lii moo leen préoccupé ñoom ñu ni kon nañ ci dugal seen loxo waaw ba tax na kon ñoom mënuñu leen sant leen gërëm leen ci li nga xam ni nangu nañu dugal ci seen loxo te loo xam ne sax bokkuloon seen activité muy acte de générosité boo xam ne war nañ ko saluer mais également ma saluer le maires yi nga xam ni ñoom ñoo d'accord ñu joxante loxo ñun ñëpp àndandoo liggéey ci loo xam ne day renforcer département bi mais également saluer la présence de notre sœur Fatou Sène députée nga xam ne ci département bi la ne aussi dugal loxoom ci xeex bi mais également saluer Croix-Rouge seen taxawaay ci wetu askan wi mais également rôle bi ñuy jouer ci mbiru xeexu mbas mi vraiment Croix-Rouge war nañ leen rendre hommage moo taxoon ma ne woon naa profité vraiment ci présence président Alassane Ndiaye président départemental saluer vraiment seen taxawaay mais surtout renouveler nos remerciements vraiment et notre gratitude à l'endroit vraiment du groupe GFA donc nos partenaires allemands ci seen taxawaay seen yéene seen générosité mais également muy tàmbali collaboration boo xam ni yéene nañ ko am ñun ak ñoom ci li nga xam ni mooy yor moo jëm ci lii d'abord suñ ci weesoo ci li nga xam ne moo jëm ci former xale yi wutal leen liggéey wala wutal leen ay jumtukaay yoo xam dinañ mën a liggéey ci département bi ndax département de Thiès am na opportunité yu bëri te xalaat nañu ni suñ colla suñ collaboré ak ñoom jeunes Thiès yi dinañ mën a am fu fu leer fu ñu jàpp boo xam ne dina mën a defar seen avenir. moo ngi am mbégte bu baax ci euh, sama déplacement bi ma def euh, ñëw fii euh, surtout loo xam ne dimbal la lu jaar ci loxoy conseil départemental. pour jëm ci collectivité territoriale yi nga xam ne euh, ñu ko duñu cee bokk surtout ñu bokk ci département de Thiès euh, ñu ne guleet nag parce que ni ma ko déggee ñu euh, yàgg nañu fee def ci santé ak lépp loo xam ne dafa jëm ci jeunes yi ci formation surtout kon tey bu ñëw gis li dal réew yi Sénégal ah gis métti bi nga xam ne moo dal population yi ñu ne léegi il faut que ñu jàppale collectivité territoriale yi nga xam ne ñoo nekk ci département Thiès loolu bu amee ñun en tant que maire dinañ euh, ko rafetlu am ci mbégte bu baax ah xëy nag metti na parce que loo xam ne bañ ci dugg ak léegi le ñaari weer ak lu topp kenn ko nekk dugal na ci loxoom mais ba tey teewul mbir mi mu ngi gën a yokk kon en tant que maire nelawatuñu suñu xel dalatu ah léegi nag euh, euh, jàppale dañ ci jàppale nañ ñu bu baax ci li nga xam ne moo jëm ci population yi muy ay produits diversifiés loo xam ne am na lu bëri kon loolu tey mën naa wax ne mairie bu ñu ci jotee mu jëm ci population yi ñu saytu ko saytu boo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp yaakaar naa ñun bi ñu def lu du am ndëkk ci loolu di remercier Yankhoba Diattara mi nga xam ne euh, lëkkaloo gi ak guru CFA ci moom la jaaree mu dugal nit yi ah kooku mu il faut ñu félicité ko parce que mën na ko yemale woon Thiès rek mais Thiès commune la population bi euh, am na solo kon naa ko yemale foofu mais bu xalaatam rafetee bu mu dugal ci collectivité territoriale yi nga xam ni ñoo bokk ci département ci bokk ci conseil départemental ñu def lu félicité remercier ko. GFA bi mu jógee dafa commencé ni mu doon doxalee euh, mooy euh, am une approche commune. Euh, parce que ñun suñu approche c'est une approche développement local euh, ñu jëkkee ci commune yi nga xam ne moom ñoo ñu gën a jege ñuy commune yu Thiès yi Thiès def nañ fi ñetti communes yëpp waaye ginnaaw ñetti communes yi appuyé nañu chambre de commerce chambre de métier appuyé nañu tamit Croix-Rouge ci seen campagne de sensibilisation kon mu mel ni kon Thiès ci boppam daj na loolu moo tax euh, requête bi nga xam ne bii président conseil départemental jox nañu ko mu nekkoon requête boo xam ne bii dafa mel ni ñun ñoo ko waroon bind ndax ginnaaw pare woon nañ ci ci Thiès taax ñu dem war a génn nag ci euh, Thiès euh, rural si on peut parler comme ça euh, dem seet wuyu ko ci communes yi nga xam ne yi jotu ñu ci def foofu ay campagne muy six communes Tasset Fandène Thiénaba Ngoundiane Touba Toul ak Ndiéyène Sira ñu wuyu ko foofu def fa li ñu fa def toll euh, li li ñu def si yeneen communes yi commune yu yi rek lañu la ñuy def feneen euh, li ñu def ci commune yu yi euh, te di ko xaar ci yeneen commune ñuy lim léegi mooy ndaw yi ñu tàggat leen ay ndaw la yoo xam ne yi commune bu nekk yow yaay tànn sa ay ndaw fukk ndaw yoo xam ne yi ñoom ñooy constitué en équipe di dugg ci kër yi di dugg ci atelier artisan yi ci boutique yi commerce yi foofu yëpp ñu dugg fa ndaw yooyu nag dañu leen di tàggat ci benn fan euh, ki leen di tàggat mooy croix rouge bi nga xam ne moom la ñu àndal ci liggéey bi ñu koy ñu dellu di leen gërëm euh, ñooñu ñoo leen di tàggat ba pare ànd ak ñoom di leen di leen di saytu li ñuy def euh, loolu dinañ ko campagne boobu ci commune bu nekk dinañ ko def ci diiru juróomi fan loolu mooy liggéey bi nga xam ne bi moom lañ fay liggéey maanaam di wan nit ñi yan yan nan lañ war a taxawee seen diggante ak li joxe feebar bi ak nak lañ ciy mën a aare seen bopp euh, jox leen tamit luñ ko lu ñu mën a jëfandikoo pour aar seen bopp mooy euh, euh, kiit sanitaire yiñ leen di jox xam ne am na ay saabu am na ay gel hydroalcoolique ak yeneen yu demee noonu loolu loolu la ñuy def wane jox leen tamit ay support yoo xam ne yi danañ ci mën a war nit ñi euh, li ñu war a def maanaam ay affiche yoo xam ne yi dinañ mën a euh, nit ñi dina dinañ ci mën a euh, xool geste yi nga xam ne yi moom la ñuy tuddee geste barrière maanaam daal jëf bi nga xam ne bi moom moo lay fekk ci luy mën a indi ci yow feebar bi. di gërëm GFA tey maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm tam président Yankhoba Diattara maa ngi koy gërëm bu baax ci li ñu def ak waa Croix Rouge maa ngi leen di gërëm. maa ngi gërëm ñëpp ak maire yi maa ngi leen di gërëm ci xeex bii ñuy xeex ndax kuy xeex daanaka ñun nga xeex le askan wi nga xeex xeexle rawatina ñun nga xam ne ñoo fi représenté askan wi kon nag dañuy def lu dul di leen gërëm di leen sant ndax nee na ñu xoddi ko bala ngaa lakkle kon nag lii nga xam ne moo ñu moo lëmbee askan wi ñu ànd se ñu indil ñu eau de javel nga xam ne day rey microbe indil ñu savon indi ñu ay kit rawat rax ci dool yi nag di ñu former suñuy jeunes jeunesse bi ñu leen di former ñu sensibiliser nit ñi kon kon ñooñu gërëm leen rek sant leen la ñu am ak ñoom ñun daal en tant que député muy muy taw muy naaj muy suba muy ngoon lépp lu ñu sumb lépp lu askan wi sumb maa ngi ci ànd ak ñoom fu ñu ma woowee rek ma ñëw rawatina nag loo xam ne nag day aar li nga xam ne moom moo lëmbe ñëpp feebar bi li ko li ko kii ñun daal nañ leen fagaru nañ leen àndandoo bokk ndey bokk bay xeex daan corona bi mu jóge fi initiatives qu'on a lancées pendant les quatre euh, dernières semaines. On a surtout couvert la ville de Thiès avec ses trois communes. Mais le coronavirus ne connaît pas de frontières et connaît pas de limite d'une ville. Et on m'a donné déjà il y a quelques semaines le message, il ne faut pas négliger les communes rurales. Et en, coopération et sur demande du conseil départemental, On a identifié six villages autour de Thiès, six villages ruraux euh, où on va lancer dans ces six communes maintenant notre initiative. Aujourd'hui, euh, est-ce que cette riposte va changer euh, la donne sur projet initial euh, Parce que la formation, le projet initial. bien sûr. Euh, comme Monsieur le Président du Conseil euh, départemental a dit, il faut être flexible. Et si une situation change, c'est la tâche aussi de la coopération allemande, la tâche de GFA, de changer l'approche. Et le besoin actuel euh, de la population et des citoyens, euh, ça c'est des mesures pour la réponse contre le coronavirus. Et nous avons assuré notre solidarité et nous sommes en train d'adapter nos activités sans perdre euh, nos activités euh, originaires, c'est-à-dire une fois la crise euh, sera finie, on va bien sûr reprendre nos activités dans la formation professionnelle, dans l'employabilité et l'emploi des jeunes de la région.